salaamaaleykum mbokk yi ñuy teewlu ci net bi TV Sénégal ñu ngi leen di nuyu di am mbégte bu baax a baax di ànd ak yéen eh, ci jataayu xibaar bi ci waxtu yi saa bu jotee dañu leen koy tënkal ci kàllaama koccu daal di koy dooreek la xew eh, mu di xeexoo bu nappkat ya ca waaxi kayaar ya eh, mu di ab tension bu méttee métti boo xam ne moo fa rek di am ba mu jur ay nit yu ci am ay gaañu gaañu ay dégâts matériels yoo xam ne jot nañu ko fa daal di nemmeeku mu di xeex boo xam ne rek dafa daal di uh, soqe ko uh, ci ay jeunes yoo xam ne rek moom moo di jeune u Kayar ak jeune u Mbooro yi ñu di ay nappkat yoo xam ne dañuy daje ci géej gi ab jàmmaarloo bu jot am seen diggante weerante ak ay uh, attaques yoo xam ne jot na caa rek daal di am ba doon la ñu daal di xamle ne ñenn ci ndawi Mboro yi ñoom ñoo attaqué ay uh, gaalu kayaar ba jota rek daal di sotti essence ci gaal ga ba ñenn ci ñoom daal di nañu leen di lakk yoon daal di na cay dugal loxoom nag fi ne ngir ñu mën a xam fan la dëgg di féete waaye mu mel ni bu ñu ca teelul jug rek dana juraat yeneen jëya maanaam ay yeneen mbir yoo xam ne bu ñu moytuwul dana ca dal di amandi leneen lu ñuy waxtaanee bokk na ci mbirum euh, chef commando gu ñuy wax ne rek euh, mu ngi wuyootu euh, Kaba Diakité nekkoon fi ko xam ne coowam jotoon na fee rek daal di juddu ñaari semaine ci ginnaaw ci jamonoy le 16 mars bi weesu ci procès bu Ousmane Sonko te ñu tegandi ko loxo ñaari semaine bu baax léegi a photoom la ñu daal di xëy nag partagé di xam le ne moom Kaba Diakité moomu te nga xam ne jot na am ay jaar-jaar yu bare bare moom moo nekkoon jëkkëru Queen Biz interrogation bu ñu samplam lu mën a xew ab bu ñu partagé mu daal di cay ànd ak Queen Biz fi ne moom la ñu daal di génne muy euh, circuler ci réseaux sociaux yi ña ngay xam le sax ne réaction wu Queen Biz ginnaaw bu ñu tegee loxo Kaba Diakité bi léegi amul lenn loo xam ne rek yëngal na ko ca ma nga continuer di def ay activité euh, ci li nga xam ne moom la ñu ko xamee mu di euh, musique baak yu ñu mel yeyu ñu ci yàbbiwuñu ci moom Queen Biz ak kii ñooñam gisuñu benn yoon rek ñu yëy ci yàbbi ana information boobu dëgg la wala déet lu mën a xew moom Queen Biz dafa mel ni rek euh, pointé nañ ko ci du doigt ba jël ab photom dal dinañ koy partagé ci réseaux sociaux yi ginnaaw verdict bi nga xam ne rek moom la ñu doon xaarandi mu di coowal euh, Saliou Samb ak Ferdinand Coly euh, ancien international sénégalais coowal escroquerie ak abus de ay at nag mu ngi ciy topp moom Ferdinand Coly ginnaaw coow li nga xam ne jotoon na fi rek dal di juddu ba Ferdinand Coly jotoon porté plainte plainte Saliou sambu mi di ko jege lool a nguuru Sénégal ginnaaw si loolu nag ay verdict ay renvoi procès yu bare bari jot na ci am verdict ba ñu doon xaar euh, ni ki euh, tey mujjee nañu ko rek daal di euh, joxe verdict ba na mu tëddee mu mel ni moom Saliou Samb ma ñu porté woon plainte daal di nañu koy nag nangul boobu lépp culpabilité maanaam Saliou Samb coupable la ko Ferdinand Coly doon toppe lépp ci wàllum abus de confiance ak escroquerie dëgg la verdict ba nag yoon daal dinay atte juróomi ati kaso yoo xam ne juróom benn weer yi lay tëdd ak huit cent millions yoo xam ne domage ak intérêt la boobu lépp xibaar tey ma nga daal di tukkee ca verdict ba ñu wàccee ca tribunal bu grande instance bu Mbour Ousmane Diagne moom nag daal dinañu koy convoqué ni ki tey ci suba ba 9h di jot lu ni mel ab xibaar la boo xam ne ñi nga ko xamle ni ki démb ci ngoon euh, moom Ousmane Diagne nag kenn xamul an rek lan moo tax yoon daal di koy convoqué waaye jot na convocation mu di division des investigations criminelles gi ko rek daal di jébbal boobule convocation ba mu war wuy ni ki tey ci suba an rek lan moo daal di xew ci diggante bi ay interrogation la yu bari ñu samp ndax ñu fàttali ko moom Ousmane Diagne bi mu génn kaso ak léegi yàggul dara ci coow li xam ne jotoon na daal di uh, xew uh, moom ak uh, Papito Kara ñoom ñaar ñëpp la ñu jàppandoo woon ci ay mbir yu ñu leen doon toppee détournement ak li nga xamante ne ni moom moo di abus de confiance ak appel à l'insurrection ay mbir la yu ñu tegoon ci seen kaw ginnaaw loolu nag fi ne beneen convocation dalaat na ci kaw man jaaj mi mile lan lañ koy toppee fi ne moom la ñëpp bëgg xam ak fan la wane di mujj ak i gëttam lu ñu mel nag tax na ay commenté jot caa juddu série d'arrestation yi nga xam ne dakkul benn yoon ci waa Pastef ñi ndax gis nañu ci semaine bi wala sax ci ay bés yi nga xam ne ci la ñu nekk li ko dalee ci weeru mars ba fi ñu toll nii. lu ëpp ñeenti téeméeri doomu aadama yoo xam ne ay Pastefien lañu ñu ngi ci rek kaso gi. lu ñeel maître Juan Branco mi ne dafay rek topp état bu Sénégal ak le président Macky sal a euh, ca cour euh, pénal euh, mu di atte boo xam ne rek bu ñu moytuwul dana daal di antu tax fa mu ngànk nee na du ko bàyyi benn yoon ci lu ñel li ñu ko def bi mu ñëwee ci Sénégal ngir rek fa yéene woon layal Ousmane Sonko ci procès bu le 30 mars bi weesu moom Juan Branco nag yemul benn yoon ci rek def ay post mais daal dinay def ay conférence de presse yu bare bari mu mel ni fi ne li ñu naan koy wóor doow làmmeñ boo noppee rafle ci ay wax la tollu fi wérngeel këpp état bu Sénégal ndaka rek lañu ko eh, bundu xataale maanaam stigmatiser ko ba génne ko Sénégal ndax boobule plainte nga xam ne doon na wax tey ci altine ji la koy déposé am déet fi ne bëgg nañu rek daal di xam déposé na ko am lu mën a xew ñenn ñi sax jàpp nañu ne dafa daal di piéger état bu Sénégal ba mu tàbbi ca boobule piège ndax li mu rek daal di xamleeg conférence de presse yi muy def ak yenn mboot ya muy commencé di sulli baaxul benn yoon ci euh, le président Macky Sall ak gouvernement bu Sénégal accident. accident bu méttee métti moo am ci yoonu Matam wi benn minibus bu doon duble na mu doon doublé baaxul moom moo daal di sooke boobu lépp accident nag ñaari doomu aadama yu ca ñàkk seen bakkan ñaan ña yëpp ay jigéen lañu kenn ki ci saasi la daal di ñàkk bakkanam kenn ka blessure ya mu amoon daf caa mujjee rek daal di ñàkk bakkanam ca ba ñu ko yóbbu ca l'hôpital ñu ñaan yàlla mu xare leen ci daw si ca Kaolack la ñuy dem ak lu doy waar la fa xew mu di ku faat soxnaam Madi Cissé lay wuyu moom mi nga xam ne dafa jël ay paaka daal di koy euh, jam soxnaam nag mu di ab ñaareelam di Ajara euh, Dramé Ajara Dramé nag ba ñu ko jamee paaka ya dafa dal di ñàkk bakkanam ci euh, saase mu mel ni jot nañu rek dal di di loxo kile la di Madi Cissé ba mu ngi garde à vue ci gendarmerie bu Fass Barigo loolu nag mi ngi amee ca Mbadakhoune commune bu Mbadakhoune nekk ci région bu bu Kaolack euh, ana rek lan moo sookee coow li euh, jotuñu caa rek daal di xuus bu baax a baax waaye ci xibaar bi nga xam ne jot nañ ko rek daal di fësal ab dispute la woon maanaam werante bu jotoon am ci digganteem ak jëkkëram ba noonu mu daal di koy jamee ñu daal di àddu wax ci euh, leneen mu di euh, lu ñeel ay témoignages yoo xam ne Eumeu Sène daal dina koy def euh, ci Balla Gaye 2 ginnaaw bu mu amee occasion ci ab émission moom Eumeu Sène nee na nag Balla Gaye kenn gënu ko xol bu rafet la yor ndax gis nañu bi mu demee ca Makkatal mu karam Balla Gaye jël ay photom di ko partagé mu ne nag bëre moo leen boole bu ñu sëggee bu buñ ca weesoo ay frère lañu ay xarit lañu te Balla Gaye ci boppam nit bu baax la mu mel ni témoignage yooyu nga xam ne Eumeu Sène dina koy def ci Balla témoignage la yu mu génnee ci xolam waaye itam di xamal askan wi surtout ñi nga xam ne ñoom ñoo di supporters yi que lamb mën naa boole ñaari mbër bu ñu nekkee ca digg géew ba jàmmaloo dana am rénkum dana am waaye buñ ci jugee itam jàmm kafoo ree dafay dal di am naam bu fekkee jot naa rek bëri ak Balla Gaye ñaari yoon yoo xam ne moom moo dal di am ndam ci kaw Balla Gaye dañ koy jeexaleek mbirum euh, Ada Fass mi takk ab ñaareel ni ki démb ñaareelam boobu nag takk na ko waaye coow jot na ca rek daal di juddu ba ay yàqu jot ca am ndax bu ñu xoolee li waral coow li waa Grand ci boppam ñoo ko ñu waa ci boppam ñoo ko daal di sooke waaye jot nañoo expliquer ana rek lan moo tax ñu daal di jël euh, takkub Ada Fass boobu daal di koy seppali ab xeex bu méttee métti bañ jot ca rek daal di yàq oto xaritu Zarko ba ñëwoon ca biir euh, lamb ca biir mariage ba li nga xam ne rek moom moo di mbirum Ada Fass ak waa Fass dafa mel ni fi ne sagar da ca xeeñ wala mo lakk ca ba xëm ndax li waral ñu daal di seppali mariage Ada Fass ba làmb moom moo di uh, seen uh, um, lu leen metti ndax dañoo jàpp ne Ada Fass daf leen frustré uh, fi ne ñëwatul Fass lu dul ni que Grand Yoff rek la daal di toog mariage am baa ko yóbbu ca Fass ñu am lu leen metti bëgg a jàmmaarloog seenu mbër wax ko ko moo jural dem moo jur dem ay affrontement yu fa am ba am na ci oto boo xam ne dañu ko toj jot fa yàqate ay yàqu yu bare bari mbokk yee xarit ñu doon teewlu ci net bi TV Sénégal ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax te di leen jox dig daje ëllëg incha allah ci beneen jotaayu xibaar jaa ngeen ñu fanaan ak jàmm.